ndeysaan ndeysaan mën a daw ci àdduna moom bu dee pak moo koy tourné Aziz Dabala the hmm? best hmm. clip bu mu tourné Aziz Dabala parce que Aziz Dabala dafa toll foo xam ne actuellement Sénégal hmm. ah, daanaka fecckat yi amatuñ fii donc moom la ñëpp di jël mu feccal leen seen clip gisoo clip yi mujjee génn yëpp Aziz moo ci nekk yëpp yëpp moo ci nekk day def danse contemporaine day def day def jémbe day def yooyu noonu yëpp macha allah daa wax dafa dégg musique daa dégg daa dégg daa xam musique mu tournel ñu clip boo génnee son bi da ko ko yónnee moom. moom mhm. léegi moom ak ak équipe dañuy répété. donc loolu moo waral man bi ñuy tourné sama clip bi ñuy fecc fekkeewu ma ko. waaw ma bokk ci moom fi mu feccee rek. après ñu jëlaale leen loolu boobu répété na ko bu yàgg moom. Mhm. moom noonu lay liggéeyee. ndeysaan ndeysaan gis nga daal Pendo Guissé. artistes yëpp ñàkk te Sénégal ñàkk na. ginnaaw raay moom waxaale wu ma leen suba moom ginnaaw raay toj suba. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam suba man moom nii ma toogee nii moom maa moom ba suba maa moom ba ginnaaw suba. ñaaw teef la de kaay ma wax la ñaaw teef la de fekk nit mu toog. di bom non mais mais man man man jëluma loolu man daal fii ba suba nag moom man moom li ma bëgg moom mooy. Mm-hmm. koo xam ne dafaa jege rek man wax ma lan moo xew parce que man sama bopp. mënut loolu amul yow bu ma amoon sa contact sax bu soobee yàlla bu subaa nañ déggante mais loolu mooy problème bi. dinaa la ko jox xaaral ma jox la numéro bii nii parce que sama sama numéro beneen dama ko joxe woon sànq si TikTok bi bi sama mm-hmm. kii bi réeree palaagu oto bi. Mm-hmm. waaw léegi da ma koy envoyé sama page comme sa compte TikTok bi. mu ko envoyé ah, léegi. bii day kii ba ma jox la sama bas normal 76. 76 waaw. 180. Non, non. 196 180 81 03 mooy numéro bii nii bii bi bariwul téléphone bi bariwul sax lu ma ko yore pour ma jox sama numéro WhatsApp parce que man du ma wax. bu ma wax 76 li ngay wax dafa dafa gàtt. 76. allo. allo oui. 180. 180 waaw. 82. 82. 03. 03. 76 180 82 03. waaw. allah akubar ay waay waay waay waay ndaysaan groupe bi ndaysaan yërëm naa leen nag ndaysaan te def fii dafa metti ngay jiite di fecc di non man daal vraiment vraiment vraiment man instant bi moom vraiment Sénégal man al waaw Sénégal waaw. ah man de wax dëgg fa yàlla man de affaire yi man. ah donte dëgg la mais comme comme comme comme comme maanaam. waaw donte nag waaw waaw donte dëgg la nag. waaw mu yàlla mën na ko dogal. image Aziz Dabala nii mi ma gis nii. voilà mais bu dem bii nii. barki Demba Ndiaye. Mhm. clip bi mhm. génn ko. Mhm. Ah, ma ñëw tey ñu ne ma rey nañ Aziz Dabala vraiment man man man man man sama bopp daal ah. moom mënu koo jël man. muy mais clip yu bëri yoo xam ne yu bees yu génn ci euh, ci ci mois bi nii ak mois bi passé Aziz moo ci nekk. clip yu baree baree baree baree bare parce que gis nga Aziz nekk na nit boo xam ne. mën a julli boo ko jegewul doo ko xam. ak a mën julli. day tourné clip ba heure julli. la illallah loolu loolu yaa ko seede man it maay deuxième fois bu ko seede. Aziz du faat waxtu. xoolal. Aziz du faat waxtu. ba julli jot mu ne Pape eh may ma ma julli dama julli ba pare ñu yeggale. ma ne la loolu kay yaa ko séede maa ko séede waat man ndax fréquenté naa Aziz bu dul benn du ñaar Aziz togg na ba tàyyi ma lekk togg naa ba tàyyi moom mu lekk toog nañ di ataaya di waxtaan te gis nga Aziz nit boo xam ni la képp ku mu wër ci moom rek am na ay jigo yu muy dox ci yow yoo xam ne ni bu sañoon tey nga sori bu sañoon tey nga toll fenn fi képp koo xam ne nag war nga ci moom laa la wax de bu sañoon nga sori bu sañoon nga toll fenn fi man mi feccu ma feccaanu ma mais chaque jour daf ma naan sama doom diw su doom boo xam ne man maa ko jur Aziz da ciy dox ay jéego sunuy sunuy discutation mi ngi nii WhatsApp ma jàkkaar lool mais kon ku yéene loolu nit koo xam ne bokk ak moom lu dul dëkkandoo hmm. boo xewlee ni ko taxawal ma fii defal ma lii ba ci man man man tuur sax bu ma ko ayee Aziz ñëw tuur tuur. su ma compte TikTok boo duggee di nga gis. tuur sax bu ma ko ayee Aziz day ñëw. barke Seydina nañ feeñ yàlla leeral lépp la yàlla yàlla leeral na ko yàlla leeral amiin ci darajay Moustapha yàlla na ko yàlla leeral amiin amiin Pendo Guissé bu leeree amiin Pendo Guissé apaisé nit ñi mais nii nii nii nii la kenn du ko jël kenn du jël amiin fenn doo gisee ak la non mais mais bopp du ko jëli ak lan moo waral ñu def lii. Ah, lan moo waral ñu def lii. ndax man de sama xel mu gàtt jàpp naa ni Aziz ah jotewut ak doomu aadama dara. Aziz sax su fekkoon mu jote doomu aadama dara sax ñoom waruñoo def lii Aziz. kii capturé yaa ngi capturé rek ndeysaan. waruñoo def lii dara Aziz. man na kuy capturé rek yaa ngi capturé yaa ngi rek. ngeen capturé amul amul sens dañoo jaaxle rek moo tax kenn mënul nalaw ñu ne leen live nii ñu waxtaan ñu xool mhm. ñu dellu xool ci yàlla te ñaan yàlla ci réew mii damay mhm. yaa ngi dégg mhm. ci capturé rek waaye yaa ngi capturé loo xam ne ñun <laughs> jàmm ak salaam bi la ñuy waxtaan non non gis nga yow wax dëgg fa yàlla am na ñu bari ñoo xam ne amaan na yëguñu ko wala buñ ko yëgee lii la ci fekk fekku leen ci waaye yow man dégguluma la Sidi Diop suba ba léegi nii suba ba taxaw salon bi ma nekkoon damaa jooy bañ na ma yow nii nga mel parce que parce que yow doo nit boo xam ne da ngay tricher. Eh, dañ kaa dugal tey foo xam ne xamu fa. maa ngi laaxi wala billaay wala dee bettu na ko. ma ko ñaanal njéggal mais Aziz Dabala mi Sidi Diop. waa léegi damay laaj. xanaa kon mm-hmm. war nañoo gëm yàlla. wallaay dëgg la. natt bi dal Sidi ba mu dugg kaso. tey mm-hmm. bu ñu daloon Aziz Dabala moo ko gënal tey ñu fekk ko këram ray ko. wala. ban Sidi yàlla moo dëgg nga wax. yàlla ay misaalam dafay gàtt chaque jour mu won ñu ko nag ñun ñoo nangu te gëm. ak ñu cee mën a jàngat. ngay xool tey lii dal Sidi Diop. bu léegi nag mën dal ku ne man mii di wax ak yow dal na ma. bu dawal naa oto boo xam ne. aw ma aw ma permis naa ko. aw mhm. beneen kii aw ma beneen dara. Mhm. mais dégg ba policier yi jàppee xam naa ne man maa nekkul ci yoon. dëgg la dama ko fàtte woon na dama changé saak ndekete foogoon ne def naa ko ca. ñu jàpp ma fii ci rond point bi may leen fii laa dëkk dimbal leen ma rek ngir yàlla war a suuli ndeysaan yàkkamti woon dem bàyyi ma dem jëli ko wax ak police ma ma dem jëli ko ndeysaan kon man xam naa lan moo xew mais nag tey tey nattu bi dal sii di nattu mu am ñu na xari ñu rey balaa balaa yàlla misaal na leen ne leen Aziz Dabala mi ñëpp xam te muy fekkee nit dundam fi lay yem ah de tey kooku war a jël ci oh. guddi gi gis nga gis nga Pendo kenn nekkatul ci sécurité Sénégal Sénégal kenn nekkatul ci sécurité mu muy artiste bi muy ku dul artiste muy ku mënti doon amatul kenn ku nekk ci sécurité man mii damay xalaat sax ni xaaral ma yenu samay bagage jéem a dem suñu kër gee bokk bokkuloo dëju parce que gis nga àddina bii nii. Mm-hmm. gisuma kenn koo xam ne nekk nga ci sécurité. ndax Aziz daba mi ku ko mën a fekk këram coowul xuloowul mosoo fekkee fu Aziz di xeexee ñu dugal vidéo ko dugal ko tik Aziz dafa jeexaat dafa mujjoon jeex dafa mën ko Aziz da soon sonn da nga war a noppalu ko fecc dafa metti mais vraiment vraiment vraiment boo bëggee dëgg-dëgg méchanceté gërë ñun man xanaa moo ay rey ni dii nii ay yeneen dëkku man yal na yàlla baal ci yeneen dëkk yi laa ko doon déggee dëkku Afrique yi laa ko man ñu naan dangay dox si mbedd gis nit ku nu rey moom man si dëkk yooyu laa ko déggee mais Sénégal foofu la ñu toll léegi musoo yeewu suba teel te déggoo nit ku ñu rey ah man de vraiment man jaaxle naa Sénégalais jaaxle naa de billaahi wallaahi wa taala barke Seydina Mohamed aha Sénégal de xaw ma luñ fi mën a def waaye ñoo ngi ñaan rek sëriñ si nga xam ne dañuy gis ñoom lu bon di gis kuy dee di gis si artistes yi ñuy dee sëriñ yooyu lilaax yi war a suuli dimbali leen ñu ba di ñu wax sarax yi ñun ñu di ko génnee moo gën kat parce que yéen lu bon mën ngeen koo gis mais ñu koy fànq mun leen koo gis léegi nag dee leen woon li koy fànq vraiment ndax sëriñ bu mën a génn ne carrément man maa waxoon nangam bi waroon nga cee tegale sarax bii bu amee du am nangam bi parce que man vraiment loolu laa bëgg man man di wax rek naan gis naa dee yii di ñëw artiste nangam dina dee fecckat dina dee théâtre kat dina dee déedéet da nga naan ñu lii nii sarax bii parce que kii gis lu bon war na man a gis lu baax ñu génne sarax yi parce que man ku mel ni man moom sarax bu ma dégg mën naa koo génne man yooyu déranger wu ma na man livre laa teg ñaan booy dem Touba lii ngay wax boo duggee ci oto bi lii ngay wax loolu ngay wax loolu ngay wax loolu ngay wax yooyu yëpp bind nañ ko bu subaa bu ñu yeewoo wala ginnaaw suba ndax ginnaaw suba lañ bëgg a dem wala suba wala ñu bàyyi ba ginnaaw suba sax comme suba nee nañ kenn si tukki xaw ma lan dafa diis man damay gëm yooyu donc na sarax yooyu yëpp man nañ ko génnee suba incha allah vraiment parce que nag ku mën a gis lu bon war a man a gis lu baax waaye diw dina dee rek après dangay taxawaat caméra yi jël la ngay wax te yow dangay